acca jërë ngeen jëf euh, yéen sunu mbokk nag bu 221 people ñoo ngi leen di nuyu di leen di jaajëfal bu baax di ci delluwaat rek kenn ku nekk euh, sa wàccuwaay amaat li di kontaan teg mbégte bu baax nag comme ni ma ko faral def saa su nekk kilifa yi wala soxna yi képp ku ma ci dalal ci biir site bi rek saa su nekk damay bëgg ñuy waxtaan ci xam-xam bu baax ba ñu ñuy topp mën cee jëlee li di njëriñ lu kawe seen njort nee naa leen ki may dalaat tey doonatu koo xam ne ku ñuy présenté la ci biir milieu médiatique bi ndax saa bu fi jaaree rek xool dina sedd rawatina ñaan paj bi nga xam ne mu ngi ciy yëngatu di ciy def ay résultats kooku mooy Seyda Arame Diouf tey nag dinañ waxtaan ci xam yaatal ci waaye xew-xewu jamono dinañ ci yaatal bu baax a baax ku déglu déglu tey nga dégg fi révélation yu am solo lii lépp laata may ñëw dugg suma biir programme yaa Seyda Aram Diouf damay bàyyi nga nuyoog mbokk askan bi bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullah mhm. di wax bisimilah rahmaani rahim yàlla bu ñu fi wax lu ñuy xeebee mhm. nañ def émission bi ci bisimilah rahmaani rahim yeggali ko ci alhamdulilah rabil alamin mhm. di nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu nag surtout waa parcelle a vingt cinq parce que tey foofu adresse bi nag mu ngi nekk fii ci parcelle unité 25 wante léeg-léeg tamit maa ngi ñàgg jeudi ba vendredi. Mhm. kon képp koo xam ne bëgg nga maa gis rek mën nga ñëw parcelle unité 25 samedi ak dimanche bi foofu laay nekk. Mhm. yeneen jours yu si des yëpp maa ngi ñàgg. Mhm. kon nuyu naa ñëpp nuyu naa tamit sama ami yi ci TikTok ci Facebook parce que doo lay jën ndox la. ñoo may partagé ñoo may abonné euh, surtout nag Instagram. macha allah fa tabaaraka la nuyu naa ñëpp nuyu naa sama clients yi nga xam ne ñoo ngi ci bitim réew di ma euh, euh, <laughs> bégee bër bu set tarkalla di nuyu tamit waa Gambie ndax bërki démb laa fu jógee alhamdulilah macha allah jërëjëf yaa Seyda Aram Diouf jërëjëf ci nuyoo bu am solo boobu ñu ngi lay fay bu baax di lay kontaane fas yéene waxtaan ci ay ponk lu bokk ci ñaan ak paj duñ ci jóge dinañ waxtaan ci xew-xewu jamono am na lu mu gis ci politique u Sénégal ak ni muy doxee rawatina ñi nga xam ne doon nañuy candidat war a jongante ni kii le 25 février 2024 cinquième président bi du ngeen ngeen bëggee xam fan lay bokk a kan la topp leen ñu ndax dina fi génne révélation am solo combat bi dox ci diggante Boy Niang 2 ak kii di Modou Lo su ngeen bëggee xam na muy demee ak ndam li fu muy féete ji du ngeen ñu toppee rek xool dina sedd atie yaa Seyda laata may ñëw ci sa gaay daa mel namoon nañ la defoo réeroon waaw namoon nañ la tey maa ngi nii fees fi dell <laughs> macha allah kon mu ngoog am na solo euh, daa am foo xam ne fa laa namoon ñu tàmbalee mu di ci bunt bi ni niñ koy defee saa su nekk mu di seet bu am solo bi nga xam ne yaa ngi koy def te képp ku ci jëflanteeg yow xol dina sedd ci laa bëgg ñu del siwaat waaw seet nag damay parce que ci seet laa dooree avant tout mhm. parce seet la ma ñëpp xamee woon wante nag damay wax ne lépp loo xam ne yaa ngi ci nekk te mu lay dundal di dundal sa njaboot da nga ciy farlu waaw ci laa dem nag jànge ay garab lu wér nu ñuy fajee mhm. ak euh, nu ñuy defaree ay garab ngóora ni ñu defaree ay garab bu ndoxu siti <laughs> wante ci seet laa dooree seet nag damay wax ne kuus kondorong moo ma ko jox <laughs> depuis <laughs> ma waxaan dara dafay toog ba mu yàgg mu ne ma li nga ma waxoon de gis naa ko bi may am nag 32 ans mi ma fekk Mauritanie foofu laa commencé di seet pettaaw ba ni ma ñëw Sénégal 2018 defe naa ne defe naa kenn jiitu ma ci déedéet bi ngeen di door seen site bi bees ah. naan yaa Seyda yónnee ñu paas rek boobu fii la ma fekkoon de <laughs> boobu maa ngi dëkk unité 13 te macha allah fa tabaaraka la site bi day dem te day nekk télé. macha allah alhamdulilah mhm. kon seet sama foor la. Mhm. seet nag damay wax na ñetti xeetu seet la am. Ah. mooy seet ci ndox. seet ci ramli. Mhm. seet ci pettaaw pettaaw nag laa gën a maîtriser. tarkalla seet à distance nag laa gën a. aay waaw da yónnee sa tur ak sa tur yaay. ñi nga xam ne dañoo nekk bitim réew ñoom xam nañ ma. parce que man sax. daanaka client bitim réew laa gën a am. macha allah parce que bi ma nekkee Mauritanie dafa amoon benn site internet boo xam ne dama doon liggéey ak moom. Mhm. foofu lañ ma xamee te ñooñu ñooy joxe sama numéro yi Sénégal ba tey macha allah fa tabaarakallah boo ñëwee sama kër dañ mhm. joxe message WhatsApp waaw soo ma message rek bu ma paree bu ma siggee dinaa la tontu su ma la mhm. waree woo dinaa la woo soo ma waree woo tamit dinaa la wax nga woo ma allah waaye seet moom da nga koy jaaree ci bunt bi. dugg ci biir néeg bi waaye doo tëb rek jaar ci fenêtre. ñaan nag. Ah. koo xam ne da ngay ñaanlu del seetlu. parce que nga xam sa sarax. am na ñoo xam ne dañuy ñaanlu sangu ba sonn ne gisuma dara. parce que xamuñu seen sarax. am na nit koo xam ne dafa war a saraxe dugub pour mu ubbeeku am na koo xam ne mbiskit ak soow lay saraxe pour mu ubbeeku am na koo xam ne mburu lay saraxe pour mu ubbeeku am na koo xam ne day saraxe ceeb pour mu ubbeeku am na koo xam ne xaalis lay joxe am na koo xam ne day raay bopp jirim pour mu ubbeeku kon seet lu am solo la uh-huh. moo xam da ngay takk jabar wala dangay tabax kër uh-huh. wala dangay tukki wala da ngay tuxu ci dëkk bi dem ci beneen dëkk ala kulli aal seet daal mooy buntu ñaan mu ngoog alhamdulilah jërëjëf kooku mooy Seyda Aram Diouf nee naa leen ñàkk jëflanteeg moom wóorut wàllum seet euh, suñu borom da ko ci dénk lii di xam bu kawe yaa xam nga nekk ci biir réew mi wala nga euh, bitim réew soo jokkook moom ci numéro boobu di daw ci suufu baar d'écran bi sa xol dina sedd guy kooku mooy yaa Seyda Aram Diouf donte nag ku mën a sànni xeer la jaajëf Diouf mm-hmm. aca ñu dox ba léegi wéyal jàll ci beneen ponk dama ñëw ci wàllum paj bi nga xam ne yaa ngi koy def su ma la doon wax ci faj bi nga xam ne yaa ngi koy def ci lan ak lan ngay faj. waaw faj nag dafa bari ay façon dangay faj ci gàllaaj bu ñuul damay faj ci bu weex bu weex nag soo ko déggee mooy yoon bi nga xamante ni mooy yoonu alquran bi bu weex bi. <laughs> bu ñuul bi nag mooy bi nga xam ne dangay ngay dem gasi reen dagg. kanaa xamoon ne yow am na ñoo xam ne Saalum buñ ne la tey ngay dee soo yeboo nga gëm ko. waaw le daggal ren. allah akbar maa la ko am na looy tari. Mm-hmm. nga tafli ko ci reen boo xam ne dafa galonu yoon <sighs> nga càtt ko benn yoon mu dagg waaw loolu moom buy génn oto mbëkk ko mu dee xam-xam am na waaw la bu baax bi amee mm-hmm, man nag mm-hmm. yoon bu baax bi mm-hmm. da nga fiy toog di déjjati ay nit da nga fiy toog di daggal reen ay waaw moo tax su fekkee da tànn yoon bi nga xam ne moo nekk yoon bu leer bi man nag ci yoon boobu laay liggéey bu dee pour ubbeeku rek la sunguf moo ci gaaw. macha allah sunguf nag dama koy bu ma neexee ma mélangé ko ak alquran. Ah. bu ma neexee ma sangeelu sunguf kase. damay dem ba àllu Gàmbi di wut ju ay sunguf di ko ah. indi. Hmm. am solo. parce que nee naa liggéey daf lay jaral. waaw waaw loolu de lu wër la lu ma jënd sunguf ci marché bi. Hmm. dem jëndi euh, gas ji ren gasi ji sunguf. Hmm. andi ko Ndakaaru. waaw ah, teg ko fi ay saako di ko boros di ko jaay ba mu jeex. macha allah ma delluwaat. tarkalla. parce que moo ma teral macha allah lu ma am ci seet laa ko am ak faj. kon mu kook alhamdulilah am na solo dañuy desante ci faj duñ ne faj it seen i xel dina jëm ci wàllum impuissance sexuelle mu di néew kàttan mhm. yaa ngi ci jàppalante gars yi bañ ciy gis seen bopp mu di néew kàttan ñu del si waatee waaw bi ren bi waaw moom mooy pour garabu ngóora gis nga mhm. ko nii mhm. micro bi waaw lii mooy ngóora keng boo déggee ah. keng bii la mag ñu njëkk ñi ah. boo daan dem di takk ji soxna dañ la yebee keng ah. sa butéel ngay jor xooj ko ci suba teel gi bu xëyee bu 18 jotee nga commencé ko naan ok day débouché mu normal macha allah man nag du ma joxe sunguf ren laay joxe mm-hmm, mm-hmm. Mm-hmm. tarkal sunguf yi des nga di naan sunguf mu indi la ah, ay prostate wala mu indi la yeneen feebar bu dee góor nga ñu lay opéré kon man ren laay joxe bii keng la da koy gas àllu saalum fëgg ko ba mu set am na solo secret bi ngay tafli rek ci ren bi nga gas macha allah boo ko naanee incha allahu taala da nga koy gis am na tamit garabu ndoxu siti waaw parce ndoxu siti moom nee naa la sama téléphone sax mun ñu ne ko dañ laa sànni kort ma ne ko sànniwuñ la kort de ah. ndoxu siti dong moo la jàpp cay parce que ndoxu siti day dof loo nit mhm. bëri na dof yi dof dof lu ci ndoxum siti moo leen dof loo xoolal ah, ilaha illallah mhm. mhm. xoolal ki yaramam nu mel waaw ko ko te lépp lii ndoxu siti la ah. na ci gàmmu gi laa xamante ak laa ko faje bu mu wér te nee naa takk bi seeru 2000 francs lay jar. traitement bi 25000. Mhm. international lay wër boo amee numéro GP ma takkal la ko yónnee la ko. macha allah. kon. Uh-huh. ndoxu siti dafay faj. waaw garabu ndoxu siti bi dafay faj. Uh-huh. wante ndoxu siti day dofloo nit. bari na koo xam ne dafa am ay tànk yu métti. ñu ne ko da dëgg liggéey bu bon. waaw ndoxu siti moo ko jàpp. Ah. fekk ah. ndoxu siti ay organe lay yàq. te ndoxu siti est xam nga ne moom mooy bàyyi hémorroïde moom ndoxum siti waaw mooy bàyyi hémorroïde ah, parce que koo gis mu am ndoxu siti dina am hémorroïde koo gis mu am hémorroïde day tële bu dee góor la bu dee jigéen la du yëg plaisir mhm. buy sëy muy metti wala kanam di rocceeku ah. wala muy am ay infection mhm. muy dem ñu koy bindal ay ordonnance kon dañuy faj ndoxu siti tarkal la macha allah moom dañ koy faj bu mu wér mu ngoog alhamdulilah kon ngoog ak ci lan nga leen di baaxewaat ci wàllum faj yaate ñuy dox waaw faj ci rab mhm. waaw dama naan rab surtout xale jigéen yi nga xam ne du ñu seen bopp du ñu ko muur ah. ñu génnee rab dar leen ak col gu bon gi ci dëkk bi. moo tax ñëpp. am nañ rab genn wàll gi am nañ cancer. <laughs> Mhm. dama naan wen dañ koy nëbb. lu am solo. Mhm. parce que yàlla daf la defal sutura. ba saxal ko fi mu ko saxal. Mhm. nga war a sol yére mu jot nga war a nëbb say cër. def bopp neen. muur sa bopp. def taatu sax moo gën bàyyi sa bopp muy génn ci ngelaw li. parce que koo gis muy bàyyi boppam rek fees na dell a rab moo tax sëy yaa ngi tas. waaw waaw kër yaa ngi reyante xale yi di. tokket xamut lu xew ay paaka fitna yi ji ci dëkk bi mm-hmm. politique bi sax li koy tàllu ci ëpp rab la seen morom dañuy xàll yoon te duñ def benn sarax mm-hmm. ñu déjjati kër fàqat ko ba mu daanu te doo def benn sarax nga fekk garab gu toog nga xàll ko déjjati ko am na ñu fa dëkkoon waaw ñooñu dañuy mer pour ñëw song ci nit ñi ñii di def accident ñii di xuloo ñii di xeex mm-hmm. dëkk bi mënut a am jàmm parce que dafa laaj ay sarax te kenn du ko def Ablaye Wade foofu la wutee woon a gars boo ko waxaan ne ko sarax tàngam. mu def ko bëri set da koy def. <laughs> parce que dëkk ñàkk sarax. waaw waaw loolu de lu wér la ñuy saraxe pour ñu mën a am jàmm. Hmm. élection yi ñu jëm nag. waaw ñu ngi ñaan yàlla rek yàlla sotti fi jàmm ak salaam. yàlla bu ci benn xale dee. yàlla bu ci benn mag faatu. Hmm. ñun ñëpp yàlla nañu fi fekk. Hmm. ñi bëgg am uh, soxna borom kër ak uh, wàllum tuut tànk te mu jafe leen doom boobu moom sangu raxas bopp la ah. bu dee bu dee jigéen boo xam ne dafa bëgg am jëkkër mhm. saafara bi da nga koy raxasee sa bopp ñetti fan insha allahu taala mhm. sooba yàlla ak yonantu bi waaw jëkkër ju baax mooy ñëw te kilifa lay doon mu gokk waaw macha allah jërëjëf kon mën nañoo jeexale ku bëgg am doom nag reen laa ci am waaw waaw da nga may jox sa tur ak sa tur yaay mhm. ma jox la reen nga baxal ko boole kook saafara bi nga naan ko tëdd ak sa borom kër da ngay ëmb waaw ah, macha allah ñu nag doom bu jigéen la ñuy taaw la bu ñu ko defee kon mu ngoog am na solo jërëjëf yaa Seyda Adam Diouf jërëjëf ci xam-xam bi waaye jërëjëf ci leeral yu am solo yooyu nee naa leen ku ko dalal di nga dégg lii di xam-xam ndax suñu borom am na lu mu ko ci dénk to gars yi jëflanteeg moom am nañ ci lii di résultat yu am solo aja euh, dañuy ñëw ci politique Sénégal ak ni muy doxee ni nga ko gisee ni nga ko jàngate waaye it am na loo xam suñu borom dénk na la ko comme ni may wax yéen sëriñ yi rek mën naa ne sëriñ yi sonku ngeen waaye it su ma neexoon ma ne yaa Seyda <laughs> waa Pastef de. Ah, ah, ñu ñëw ah. foofu. wala fe wala ci ma yóbbu kër yaa ma di tax. waa nga kon. ah bul ma yóbbu kër yaa ma di tax. ma daal maa ngi fii parcelle toog te damaa njaboot talu ma ko ma yóbbu rëbës. <laughs> ñëwal ci politique Sénégal ni nga ko jàngate yow ni nga ko gisee. doy na waar politique bi damay wax ne bu mu yàq famille yi bu mu yàq mbokk gi yi parce que ñunu neen la. Gambien yi raxuñu ñu. Mhm. Malien yi raxuñu ñu te ku gañe rek Sénégal moo gañe lu wér kon nañ ko teg ci yoon mhm. nañ ko teg ci diine nañ ko teg ci lislaam mhm. nañ ko teg tamit ci jàmm ah. parce que boo demee tey Antoine Diome ak mhm. euh, Sonko ñoo bokk benn dëkk ak Serigne Bassirou Gueye ah. Macky Sall man ak moom ñoo bokk jëm Fatick wallaay wallaay tey bu Fatick tàkkee du mën a dem Kaolack lu wér nañ ko teg ci yoon rek nañ ko teg ci jàmm ndeysaan teg ko ci salaam xam ne ñun ñëpp ñi gañe rek ah. ñun ñoo gañe ci réew mi la kenn Gambien bi gañewul déedéet kon politique jàmm moo ko lal mhm. te politique diine la parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da doon politique mhm. politique ragal yàlla moo ko war a lal tarkalla tànk ragalun yàlla mhm. Sénégal bëri nañu foo ah. ci politique ci xaritoo ci mbokkoo foo dëkk bi dafa mel ni ci wor lañ ko lal bu ñuy politique dañuy warante nga am sa mbokk di warante ak bu la wanee kanam nga wan ko visage bu leer bu la hmm. wanee ginnaaw nga yàq ko wallaay ndeysaan lu wér bu dee xarit la hmm. nga nekk ak moom mu xamal la sa lépp hmm. yow itam nga xamal ko ba ñëw tax sa diggante yàlla na ba mu yàgg sax yow da ngay découragé wu bëgg a <laughs> génn Sénégal dem ba Gambie <laughs> na solo eh, li bëri na waaye président Ousmane Sonko lépp si pexem dañuy gis ne dañ koy rakkale ci nga xam ne dañ koy dugal doo dugal de maa la ko wax doo ma yóbbu kër yaa ma di tax de moom loolu moom moom doo ko def moom. seet ah. ah, moom suñu borom am daam lum la ci mën. waaw daam lum la ci may te ñëpp xam nañ ko bés bu ñëwee dinaa ko wax lan lay tegtal sarax ba Ousmane Sonko génn ci kaso bi. Ah. loolu moom mënal naa ko. mais génn waaye à part ça politique. Sonko Macky wax dëgg yàlla talu ma dem rëbës nag. mën naa génn balaa élection yi. ah déet doo ma dugal de. Mm. <laughs> cinquième président nag. doo ma dugal de. <laughs> kon doy na kon kon mu ngoog kon nee na ma du tontu baax na ba léegi. wax ne. <laughs> waaw yàlla bi yàlla du ko jox ku koy weer. mbóot buñ ne mbóot mooy ki nga xam ne day noppi lu bari. di lu mhm. tuuti. tarkat la waaw boo génnee da war a wax farata. lii jëriñ nit ñi nan la ñuy def ba fajut parce que dëkk bi yëpp a feebar. Mhm. ku amul suukar am nga tension wala nga am jabet. ku ko am nag da ngay ñëw nga dox seet si ma unité 25. ma jox la solution bi. waaw à part da <laughs> maanaam xam-xam bi gën a néew. waaw mooy nga gént wala nga gis ne diw day daanu. boobu moo gën a néew ci xam-xam. waaw loo bëgg a wax ci Modou Lo Boy Niang noonu. waaw dama ne Modou Lo ak kan. Boy Niang waaw moo ne sax yëgu moo ne dañuy bëri ah. waaw yaa ba ma nag. yow wallaay yëgu ma ko woon <laughs> yaa ma ko yëgal. ku ci bëgg a daan daal da dox ba ñëw sama kër ma sang la sama lekk ah daanu ma jox la sama sengoor gi nga ràngu ko dem ku fi jiitu rek waa ndax man mbëri duñ jëg sama kër tarkalla waaw alhamdulilah macha allah jërëjëf ci lan ngay tàggatoo tey waaw kon maa ngi tàggatoo tàggatoo boo xam ne du tàggatoo di conseil waat sama mbokku jigéen ñi rek ñu xam seen valeur xam seen bopp <laughs> mhm. xam ne àdduna jeexagul ah. te ku nekk na nga takk sa sër am jom fa fas naa liggéey te mhm. ñu bàyyi yàqante bi mhm. parce que yàqante bi defaluñu dara dama ne mbokk kenn du ko sànni waaw soo demoon nga naan sàngara wala nga tux yàmbaa wala nga def cagatu ji ci mbedd mi ah. say mbokk dañ la war a dànk ba mu mën ñu waddu la sa mm-hmm. wante da ngay nekk nit ku baax ci famille bi sincère mm-hmm. ñu yàq la ba nga yàqatoo ba doo jar dara ci nit ñi ba foo tourné ñu lay xoolee ba tax te yow yaa leen gën mm-hmm. gën leen nday gën leen bàyyi kon nañ ragal yàlla ñu sóoraale ñun suñu diggante ak suñu borom ah. ci xarit gi ci mbokk gi ci famille bi ci dëkkandoo bi bu ñu ko defee rek alhamdulilah Sénégal day jëm kanam kon nag nuyu naa leen ziar naa loo leen ma namm namm naa leen lu ko baax salaamaaleykum wa jërëjëf